jaaru ñu def ci vidéo bokk na ci lii di raxas xol di saxoo tudd yàlla ndax yàlla moo ne ala bi zikrillahi tatma inal xulub gis nga zikar yàlla dafa wax benn wax mu ne mm. ala bi zikrillahi tatma inul mm. ndax du ci tudd yàlla mm. ci la dalu xol nekk ci ce que du ci tudd yàlla képp la seen dalu xol nekk maanaam nit day daw di wut xaalis ñii di daw di wut daraja ñii daw di woy xéssal ngir rafet ñu défé né tar bi buñ ko amé ci la affaire bi nek fekk dédé mm-hmm. tuddu leen yalla rek tatma inul khulub zikar rek ngay mëna def dem ba gis nga da nga nek nek président de la république yor kurus gu bëne ko gëna neex bokk aussi si lii di raxas xol manam di julli di julli waxtu di julli waxtu heure yi nga koy julli si ci waxtu bañ koy dajalé daf lay permettre nga am tranquillité tranquillité esprit te te sa xol bi dafay dund aussi bokk na aussi ci lii di raxas xol ci yenn si zikir yi mooy ngay ngay zikir laa ilaha illallah soo ko mënee def euh, téeméeri yoon euh, matin et baax na. laa ilaha illallah boo jàngee ci alquran yàlla lim njëkk wax mooy xam leen ko fas ko fax la mën na ko laa ilaha illallah. laa ilaha illallah boo ko seetee mooy baat bi joxe màndarga ci dugg ci lislaam ku ne dugg naa ci lislaam te waxoo laa ilaha duggagoo fenn amagoo amagoo dara mooy baat boo xam ne tamit ku mujj ci sa làmmeñ ak mbon goo mënoon nekk nga dem aljana mooy baat boo xam ne boo calculé xaraf ya ñaar fukki xaraf la ak ñeent boo xoolee bis bi ñaata la 24 heures ñaar fukki waxtoog ñeent moo waral boo ko tuddee bàkkaar boo def ci 24 heures yàlla jéggal la ko boo calculé baat juróom-ñaari baat la safara juróom-ñaari buntu la baat bu ne day tëj buntu boo waxee laay lay laa juróom-ñaari baat baat bu ne tëj buntu juróom-ñaari buntu yi safara buñ tëjoo fooy demee safara muy baat boo xam ne boo ko waxee yonentu ne aras yëngu yàlla ne ko doo dal mu ne ko naka laay dalee te jéggaloo ki wax laa ilaha illallah am na doole. balaa ñuy dugg si secret bi ñu leen di jox si aussi luy raxas xol dañ leen wax waaw ngeen woy di abonné et di partager vidéo yi bu baax a baax wasalaatu wasalaamu ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am wassalam ala asrafi khalqillah sayyidina wa maulana muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hayu lañ passé ci émission bé jallon hayu nak lenn lañ leen ci mayat moy ne buñ noddé fajar bala ñuy julli farata nga ne yaa hayyu yaa qayyuum laa ilaaha illaa anta sa xol day dund du dee mukk ñi am feebaru xol ñooñu moom incha allah duñ ci bokk tey nag ñu ngi ci qayyuum bi nga xam ne moo hayyu ñoo ànd mooy ki nga xam ne moo taxawee boppam ku man sa bopp bàyyi dafay wax ne sëriñ dëgg-dëgg mooy ko pare ci boppam xanaa bon hayyu qayyuum qayyuum mooy ne yàlla moom ba mu paree ci boppam waxatuñ ko moom bay day jàngale jàngale mu yéeme yéeme ki pare ci boppam. ki nga xam ne dootu soxloo kenn ci mbindeefam ki nga xam ne moo taxawal njëlbéen mbir ya la ja moom la installation bi ngay gis nii ci àdduna bi bu njëkk ba bu mujj ba mu yàlla ko defee ci ismullahi xayoom saahir ba ak baatin ba la ja feeñ la ca mu ngi ko liggéeyee mu ngi ko taxawee ci ismullahi euh, xayoom xayoom nag mag ñi dañ ko fonkoon أسمع يوينغ كمن رفام قاف قيو مقا إمو قادر خهارو ها يوي دفام يمو يدف جروم نيار جروم نيار تولا نينا جروم نيار تولا واي مانجي دان كو دان تخو مباح لول نك سي كير والحمد لله رب العالمين موي كيغا خامنا دان عرب باغي نون القيوم قائم بنفسه الذي لا يفتقر الى خيره من قلقه فهو القائم بأول الأمور وقائم بآخرها وقائم بظاهرها وقائم بباطنها القيوم والقيام الذي لا ند له من أسمائه بني ما تقاموا xaamuus loolu تقاموا عربي قاسي أمنك arab التلوي موي comme mom installation bu njëkk bi mujj beeg bu feñ beeg bu nëb bi moko def tabax bi nga fekk nga ko mu tabax mu taxaw <coughs> cela yi sont yi ci biir ak yi ci biti yëpp ki ko def moy kan qasiya bi nak moy xusoolul qiyam moy samp keur ma ngi bu njëkk mom lañ dal sampee keur kuñ bëgg dimbalé mo ci lañ lay jaarale nga samp keur xëyoom dafa nek saatan wa sifatan yàlla dafa taxaw ca jëmmi baatinam ja mooy zaatan taxaw ca sifatan ca melokaan ba wa sifatan taxaw ca feelan ca jëf ja ak jëf ja képp ku koy siikar nag dindi liif gaag laam nga ne xayoomun xayoomun te doo wax ya doo wax alif doo ko wax yow da nga da ngay da yàlla day dàq sa bët ay nelaw da ngay am kàttani toog wird ak wala kàttani toog liggéey wala kàttani toog jàngal Alquran yaa yi bu fajar jotee wax naa leen ko nga nekk ba fajar jot. ñu nodd nañ te julleeguñ eh, ngay ko wax ngay koy liggéey digg boobu kooku dafay tax nga am tawfiix mooy loo dugg mu sotti xam najaa réussite ci loo xam ne eh, borom xam-xam yi nee na laa masida alay lu ca doole ku mënatu la nekk yàlla dalay taxaw ci biir ak biti ku ko takkoon ak juróom-ñaari fan moom eh, incha allah loo ci ñaan yàlla defal la ko foofu nga déggee gars yi génnee akalamulkan boo buggee lekk nguur bii la waaye waaji du dana ñëw ci kanam moom nag mooy nguur dëgg mooy xam-xam mooy xalal tur yàlla waa ngoog xayu xayoom moo tollo am wàllu dunya xalali àdduna am wàllu dunya 174 la boo boolee xayu xayoom am wàllu dunya la lay jox mag ñi la turu mag ñi la jàpp ko di ko jaamoo yàlla rawatina gannaaw farata bu ne nga def ko 174 allahul muwaffiq yàlla rek mooy maye tawfiq yàlla mooy dimbale yàlla mooy may li jaaba yàlla mooy barkeel yàlla mooy joxe alal yàlla mooy yokk nit ki yal na yàlla dimbal waaye yéen ñii yittee suma suñu mbir yàlla mbir yàlla laay wax du man sama émission moo leen yitteel li leen yitteel mooy yàlla bi asmaihi wa sifaatihi wa afaalihi yal na yàlla barkeel la képp ku ñu déglu rek yal na yàlla may tawfiix ba booy nelaw yàlla yanka wala loo xam ne ci may wax dana la ci jox tur yi nga xam ne yow boo koy liggéey rek xam fatu ci halal xam fatu ci fan wu gudd wasalaamualeykum. yaa xayu yaa xayu. waaw mooy am wàllu dunya. Mhm. soo ko calculé 174 la lay jox. 174 mhm. nag dafa garaaw. Mhm. ndax mën nga ni xayul xayu mooy alxuraan. xam nga alxuraan 114 saar la. 60 hmm? isib. 114 plus 60 ñaata la. mooy 174 mooy am wàllu dunya. ki bëgg xaalis. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كثيرا وقرن في بيوتكم